tarif yi ñu ngi ko fixé ci 400 euh, francs ak 500 francs ku am téeméer dina mën a jóge euh, Géejawaay dem ba Petersen liñ ci war a dolli tamit mooy euh, yemuñu foofu dañu fexe ba ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw téeméer boo jël fukk yi ak juróomi passager yi état du Sénégal dina jël ci gafagaam am lu mu leen jàppale ñooñu Euh, ci condition yi nga xam ne ministère yi ko yor euh, ñoom ñoo ñu war a jox charte yi ñu war a doxee euh, dinañ gis ne tarif bi ma leen jox léegi ñoom genn wàll gi la ñuy fay 16 pour cent usagers yi lay nekk ñoom dinañ mën a mën a fay 200 francs ba 250.